ngeen di si ànd seen mbokk Ibrahima Dramé ki ñu àndal ci wàllum xarala gi muy suñu mbokk di Bachiru Sisi mbokk yi ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa mi ñu wërsëgal ñu fekkee bés bi ñu ñaan yàlla suñu borom audience bu njëkk ba ñu am ak suñu borom ci waxtu su néew ci ginnaaw lépp lañ fa jaamu yàlla yal nañu ko buur yàlla nangul amin ya rabbal alamin xam ngeen ne waxtu bi bu jotaan ci kattanu suñu borom ak ci ndimbalam dinañu fas yéene ànd ak ci waxtu su néew ba ñu yàlla wërsëgal ñu fas yéene ko ànd ak yéen ñu fas yéene wéttalant ak lenn ci suñu mbiru diine diine wi nga xamante ne buur yàlla tabaraka wa taala ñu ci won xiwal yam ñu fa dottil mu di ñu wax ci suratul ibrahim wa aataakum min kulli ma saaltumuh wa in tauddu nicmatallahi laa tuxsuha buur yàlla mooy buur bi nga xamante ni wa aataakum moo leen min kulli ma saaltumuhu ci lépp li ngeen ko doon ñaan ci lépp li ngeen soxla fa moom jox na leen ko hatta li ngeen ko ñaanul sax jox na leen ci yàlla ne wa in tauddu nicmatallahi bu ngeen doon lim xéewalu yàlla yàlla ne laa tax du ngeen ko matal xanaa li fi nekk kañ innal insaan naka doomu aadama de dadi ji joo xamante ne la zalumun aji tooñ la ci boppam kafaar aji weddi xéewalu yàlla ci xéewal ya yàlla defal te loolu mooy li am la a ëpp ci doomu aadama yi la gën a bëri ci doomu aadama yi ci xéewal yeleen yàlla xéewalal dañ koy salfaañe dañ koy weddi duñ ko sant ci xéewal yooyu waaye lu ëpp ci doomu aadama yi dañ di aji tooñ ci seeni jëmm ci la nga xamante ne tooñaange wi du dem fenn du dellu ci kenn ku dut yow mi ko def ba tax na buur yàlla tabaraka wa taala mi xam ne doomu aadama bi da di tooñkat bu mag jëmmale ko ci jëmmam waaye da di jëmm joo xamante ne day salfaañe lépp loo xamante ne buur yàlla xéewalal na ko ko ci xéewal ya nga xamante ne fa moom la bàyyeeko su ko defee mu daal di ñu yónni yonent wi nga xamante ne sallallahu alayhi wa moo ñëw ngir mu daldi ñu leeralal leeraayu bëgg-bëgg ya yàlla bëgg su ko defee si ginnaaw tuuti rek comme nañ leen ko doon fàttale kon teg mbokk yi ñu ngi doon joxe ci béréb ba yàlla sopp ci kaw suuf si mu doon jàkka nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa moo ñu ne béréb ba yàlla sopp ci kaw suuf si mooy jàkk yi waaye béréb yi yàlla gën a jéppi ci kaw suuf si mooy marché yi kon képp ku yàlla man loo keroog ba nga déggee noddkat bi di yëglu ne waxtu ba ñu war mën a rencontre suñu borom waxtu ba jot na premier audience ba ñu war a mën a am ak suñu borom waxtu ba jot na képp ku yàlla jàppandalal ba nga dem wuyu woote woowu nga dugg ci béréb ba yonent bi mooy béréb bu yàlla ganu sopp ci kaw suuf si ah yow war nga sant yàlla de su ko defee nga bokk ci ñay dem rencontre seen borom ci béréb ba yàlla gana sopp ndegem alal moo koy may nit ñi am na ñu yore la nga yorul te ñooñu mënuñoo teewee béréb boobu bu dee xam-xam moo koy taxa jox nit ki am na ñu la ëpp xam-xam amaana yàlla dogalut ñoo ñu fekkee waxtu woowu ci béréb boobe bu dee daraja la naka noonu bu dee moyen la wala pexe wala lijjanti am na ñu la ko dàq fuuf am na ñu la ko gën a bërile waaye yàlla dogalut ñooñu dem wuyu woote ba jëp ci béréb ba yonent bi ne béréb boobu mooy gën ci béréb ba yàlla sopp ci kaw suuf si kon yow mi yàlla tàggatal may la wërsëgal la lu toll ni nga war a mun a jóg dox say tànk dem remplir woote boobu jib ci béréb boobee ñu ne la béréb boobu mooy béréb bu yàlla gën a sopp ci kaw suuf si kon war nga sant yàlla bi léegi dafa bokk ci wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha yàlla neena na jox naa leen lépp li ngeen ma ñaan lépp li ngeen soxal lépp li leen soxal ci man jox naa leen ko lépp li ngeen aajoo ci man yàlla jox naa leen ko jox naa leen sax ak loo xamante ne ñaanu leen ma ko te man xam naa ne loolu li ngeen yittewu la waaw jox naa leen ko waaye li fi nekk daal inna al insana la la zaluman kafaar da doomu aadama da di jëmm joo xamante ne daa bokk ci moom day tooñ boppam saa su ne aji kat la bu mag jëmale ci boppam waaye ko mën a weddi xéewalu yàlla la mbokk yi imaginer yàlla defal la nopp pour nga dégg fa kawteefu yàlla yi nga dégg xayal salaa xayal falaa asalaatu xayru min annawmi nga ne nemm ci sa kaw la yow tooñ nga sa bopp ci appareil yàlla la yàlla jox ngir nga déggee fa kawteefam tànk wala yàlla jox nga ngir nga doxee fa dem jaamu yàlla weddi nga yàlla ci xéewalu tànk yi ilaa axiri yi waaye nag war nga ci war a mën a déglu sa téléphone war nga ci war a mën a déglu message war nga si war a mën a déglu ay appel war nga si war a mën a xool ay vidéo war nga ci war a mën a dox dem liggéey waaye ngir dégg noddukat bi la muy noddu dem rempli loolu saxal ko déggal ko jombale nga sa nopp loole kon innal insaana la zaluman mu ngi nii naka doomu aadama bi da di kuy tooñ boppam tooñ nga sa bopp ci sa xéewal bala yàlla xéewalal ci nopp yi tooñ nga sa bopp ci say nopp xéewal la bala yàlla jox lu tax bi nga déggee salaatu xayru minan nawm tam law julli tooñ nga sa bopp ci tànk bala yàlla defalal mu doon xéewal ñeen la lu tax jóguloo dox dem jàkka ja ci kanam tuuti di nga jóg dem liggéey te tànk bi moo lay génne sa néeg moo lay dugal ci sa woto woto bi ngay dugg sa tànk moo koy manipuler bi keroog ngay àgg mais tere nga dox ak say tànk woowu yàlla xéewalal la pour nga dem julli jàkk kon doomu aadama bi dadi kuy tooñ boppam kon mbokk yi loolu yëpp dafa bokk ci innal insana la zaluman kafar doomu aadama bi da di aji tooñ boppam ci xéewal ya ko yàlla jox waaye da di aji weddi xëywalu yàlla ya ko yàlla xëywalal yal nañu yàlla jéggal yal nañu yàlla xiir ci boppam amin ya rabbal alamin mbokk yi xam ngeen ne vacance bi lu si des bari tut doomu aadama ba yàlla dink tut dink la njaboot mu doon takk ndeer nga xamante ne moom la yàlla baaxee fii ngir nga nekkee ko buur yàlla tabaraka wa moo ngi nii di la avertir yow doomu aadama mi mu wërsëgal doom doom joo xamante ni bu dee alal la am na ñu la ko ëppale munuñ siy jot bu dee pexe la am na ñu la ko ëppale munuñu siy jot bu dee leneen la lu mel ni lu xeetew ak li ni mel ah yàlla suñu borom tabaraka wa am na ñum ko jox waaye ñoom yàlla dogal na amuñu ko yow mi yàlla joxul dara ci xeetu moyen yooyu yàlla wërsëgal la ko ah na nga déglu la la bi digal ne noonu nga war a jëflante tout tànk boobu ba tax na ñun si vacances na leen jël xale yi dugal leen daara dugal leen daaray vacances yi ñu xam as tuut ci diine bi bu école tijjee bu ñu munee boole ñaari français beeg njàngum alquran bi muy li gën ndax yàlla moo ngi ne di la won am na lu mu séddale ci jaamaam mi ci num ko soobee mu ne ci suratu shura bur yàlla ne lillahi mulku samawati wal ard yaxluqu maa yashaa yahabu liman yashaau inaathan wa yahabu liman yashaau dhukuran aw zawwijuhum zukraanan aw inaasan wa yajcalu man yashaau aqiima innahu alimun qadir mbokk yi buur yàlla tabaraka wa mu ngi di wone kattanam ak atte ya mu atte ko ci jaamam yi mu di ñu woon bi léegi nguuru asamaan juróom-ñaar ci la ñu nekk nguuru suufu juróom-ñaar ci moomeelam la nekk moom yàlla moo tax mu ne ñu lillaahi ñeel na yàlla yàlla bi nga xamante ne amul lenn li fi nekk di yàlla lu moom yàlla leneen nekkul di yàlla keneen du yàlla amul dara li fi di yàlla lu buur yàlla tabaraka wa moo tax mu ne lillaahi ñeel na yàlla mulku samaawaati wal ard nguuru asamaani juróom-ñaar ak nguuru suufu juróom-ñaar yàlla boobu yore nguuru asamaani juróom-ñaar ak suuf yaxuluku moy bind maa yashaa'u la li man yashaa'u ci ko sopp inaasan ay jigéen kese ay doom yu jigéen kese wa yahabu mooy may li man yashaa'u ki ko soob zukuran ay doom yu góor kese aw yu yuzawijuhum zukuranan wa inasan wala mu mélange ko jaxase ko mu may la doom yu góor ak doom yu jigéen mooy defki ko soob wa yajcalu man yashaau mooy def ki ko soob aqiman kii dut mën a am doom innahu naka moom yàlla bokk na ci kattanam ak melokaanam yu kawe yi alimun ki xam la tax mu defee ko nii xadir ki ko man la tamit waaw xam na la tax mu defee ko nii te man nakaa defee nii waaw mbokk yi njeexantalu aaya bi nañ leen ci teg suñu baaraam ñu jàppandikoo ñu def ci taaliqaat ci aaya bi ab commentaire bu méngoog suñu waxtu su néew yi ñu may nii yàlla nee na bokk na ci màndargay kattanam moo yore nguuru asamaan juróom-ñaar ak la fa nekk mooy bind la ko soob waaw la soob yàlla bind la soob yàlla moo koy bind la ka neex lay bind mu ne ñoo yahabu mooy may li man yashaa'u ci ki ko soob inaasan ay doom yu jigéen kese innahu naka moom yàlla alimun ki xam la la tax mu may kooku doom yu jigéen kese diir ki ko mën a def la tamit la tax mu jox kooku doom yu jigéen kese ba léegi moom yàlla wa yahabu mooy maye liman yashaa'u ku ko soob zukuran ay doom yu góor kese innahu naka moom yàlla alimun ki xam la la tax mu jox kooku doom yu góor kese boolewu ci jigéen xadir ki ko man la waaw la tax mu jox jaamam bi ay doom yu góor kese moom yàlla ko xam ki kim ko jox xamu ko ki yore ay doom yu góor kese kese kese xamut lu tax mu yore ko te mënu ko yàlla maka ko jox moo ko man te moo ko xam te kenn du ko laaj lu tax nga jox ki doom yu góor kese ki mu jox doom yu jigéen kese yàllaa xam lu tax mu jox ko waaw nanka téyee yàllaa xam lu tax mu jox la ay doom yu jigéen kese boolewu ci doom yu góor téye ko nga sante ko yàlla la tax mu jox ki doom yu góor kese boolewu ci doom yu jigéen yàllaa ko xam te moo ko man tiye ko nga sante ko yàlla waaw moo tax mu ne aw yuzawijuhum zukuraanan wa inaasan walla moom lay soob mu jox ñetteelu personne bi ñetteelu mbindin bi ay doom yu góor ak ay doom yu jigéen mu mélange ko mu jaxase ko soxna Mari yàlla nee na mooy jox ki ko soob doom yu jigéen kese du si boole góor moo xam lu tax mu def nii te moo ko man waaye bi léegi moone moom yàlla ci coobare mooy may ki ko soob ay doom yu góor kese du su booleeg doom yu jigéen ki xam lu tax mu def lii la waaye ki ko mën a def la tamit bi léegi bokk na ci la muy mayee walla mu jaxase mu mélange doom yu góor ak doom yu jigéen ci ki ko soob mu maye la ñaari façon mbindaafoon yi waaw soxna si mun naa mucc ñu ne lu mu am ñu ne doom bu góor beneen yoon mun naa mucc ñu ne lu mu am ñu ne doom bu jigéen mu jàppee ko nii mais yàlla la yàlla nee na innahu naka moom yàlla alimun ki xam la tax muy jox ñépp li mu séddale nii ki ko xam la xadir ki ko mën a def la tamit waaw la tax muy jox ki doom yu góor kese du si boolee jigéen ki ko xam la ki ko man la la tax muy jox kii doom yu jigéen kese du si boole góor yàlla nee na ki ko xam la te ki ko man la tamit waaye yàlla nee na la tax may jox kii doom yu góor ak doom yu jigéen mélanger ko jaxase ko jox ko ko ah yàlla nee na innahu naka moom yàlla alimun ki xam li muy def la ci loole qadir ki ko mën a def la kon bu dee yàlla moo yore nguuru asamaan juróom-ñaar ak nguuru suufu juróom-ñaar muy bind lu ko soob gis nga fii yàlla dafa yëkkati niveau la nekk ci nguuram la jafee bind doomu aadama la jafee bind doomu aadama waaw yàlla nee na nguuru asamaan juróom-ñaar ak la fa nekk ci ay mbir man yàllaa ko yore looloo gën a jafe bindu doomu aadama waaw kon bindu doomu aadama fa yàlla loolu du dara par rapport nguuru asamaanu juróom-ñaar bindu doomu aadama du dara fa yàlla par ak nguuru suufu juróom-ñaar bindu doomu aadama du dara fa yàlla par rapport ak yàllay bindu lu ko soob keneen ku dut munuloo yëkkati niveau ba nga nekkee ba nga tollu ni jalla wa ala moo mel lam ñu melalee kattanam moo am sañ-sañ bam ñu joxoñal ci kattanam te nguuru asamaanu juróom-ñaar ak suuf ci moomelam la ñu nekk te mooy bind lu ko soob mu ne ñu yahabu mooy maye li man yashaa'u képp ku ko soob inaasan ay doom yu jigéen kese kom na ko mu fassiruuna yi di tegtale ñu ne nabillahi shuaib alayhi salaam yàlla dakaa ay doom yu jigéen kese yàlla dogalut yonentu yàlla shuaib muy meññ doom yu góor yàlla daka wërsëgal mu meññ ay doom yu jigéen kese bokk na ci la yàlla di maye bi léegi wa yahabu mooy maye li man yashaa'u képp ku ko soob zukuran ay góor kese ay doom yu góor kese mu fasiruna yi bi léegi tegtaloo nañu aaya bi ñu ne yonenti yàlla yaqub di bàyyi yusuf alayhi salaam yàlla dakaa may ay doom yu góor kese ah, amul doom yu jigéen waaw su ko defee yàlla muy séddale lu ko soob comme namu ko junjee ci aaya bi ñu ne bi léegi aw yuzawijuhum zukuraanan wa inaasan walla moy mélanger yàlla moy jox nit mooy may ki ko soob doom yu góor boole ko doom yu jigéen ñu ne tegtal bi tamit dinañ ko tegtaloo ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ma yàlla may ay doom yu góor ak ay doom yu jigéen waaw ñu ne ñetti doom yu góor la ko buur yàlla wërsëgal di abdallah ak qasim ak eh, kii di ibrahim waaye ñu ne zeynab umm kulsum ruqiya ak eh, fatimatu zahra moom la ko buur yàlla wërsëgal ci ay doom yu jigéen di zeynab ruqiya umm kulsum ak fatima fatimatu zahra bintu rasul mu doon ki mujj ci moom waaye yàlla dogal ci ñenn ñi ñu di ko taawuloo ñu ne yàlla moom la may ay doom yu jigéen ak ay doom yu góor comme nim ko mayee ñenn ñi kon mbokk yi yow mi yàlla yenkeewal nga am doom yu góor ak doom yu jigéen nañ leen bokk déglu la suñu yonent bi tegtal sallallahu alayhi wa ci maana xadis bi nga xamante ne moom lañu suñu yaay Aïsa radiyallahu anha baaxe askan bi ne suñu yonent bi sallallahu alayhi wa mooñu moo ñu baaxee ne ñu euh, képp ku yàlla wërsëgal ci samay xeet ñetti doom yu jigéen ah xamal ne yow am nga wurus am nga woor am nga jama ba tax na an ummul muminina aishata anha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal laysa ahadun min ummati yaulu thalaasa aw thalaasa axawaatin fa yuxsinu ilayhinna illa kunna lahu sitran min annaar hadisun sahih axrajahu albani fi sahih jamia mbokk yi yal na jàmmi yàlla nekk ci ak seeni njaboot valooru doom bu góor ak doom bu jigéen la suñu yonent bu bëgg a baaxee xeet bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadiisu suñu yaay aïsata radiyallahu anha an ummul muminin jëlee nañ xadis bi ci yaayu wayu gëm yàlla ñi di suñu yaay aisha radiallahu anha yal na ko buur yàlla gërëm suñu yaay aishata radiallahu anha nee na anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaal naka suñu yonent bi sallallahu min ummati amul kenn ci sama xeet koo xamante ne yaulu thalasa banatin aw thalasa axawaatin amul kenn ci samay xeet koo xamante ne yàlla dénk na ko mu meññ ñetti doom yu jigéen walla ñetti doom yu góor ñu nga xamante ne ñoo bokk fa yuxsinu ilayhinna mu rafetal ci ñetti ñooñu mu rafetal seen dundin mu rafetal seen jikko mu rafetal seen jaamu yàlla mu rafetal jëmale ko ci doomam ñooyu ah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na illaa kunna lahu sitran min an naar lu dut yàlla dina def ñooñu nekk lakkoy koy gàllankoor ngir mu bañ a tàbbi ca safara allahu akbar ñooñu yàlla dénk ay doom yu jigéen wala ñooñu dénk la yàlla dénk la ay doom yu góor nga rafetal seen dundin rafetal seen anamu jaamewu ni yàlla rafetal seen jikko ñu ràmbook ragal yàlla ñu ràmbook kersa ñu ràmbook njàngale diini islaam yonent bi nee na keroog bés ci ñooy doon garde foo balay baña tàbbil safara ñuy doon sitr maanaam ñooy doon barrière ba tax doo tàbbi safara allahu akbar kon raccourci bu gàtta ngi nii boo xamante ne yow mi yàlla dënk ñetti doom yu jigéen walla yow mi yàlla dënk ñetti doom yu góor ñu nekk ay frère ñu nekk ay sœur ñu nekk ay doomu baay ci geño walla ci meen moo xam nga rafetal seen dundin nga rafetal seen jikko yóbbu leen ci daaray vacances ñu jàng alquran jàng xadiisa yonent bi sallallahu alayhi wa xamee fa lépp lu yàlla digle ñu war ko jëfee xamee fa lépp lu yàlla tere ñu nar ko bàyyi ñu xàmmee fa lépp la nga xamante ni moo dëpp ko njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu nar see tënk seen bopp ñu xàmmee fa lépp li nga xamante ne mooy la yonent bi tere sallallahu alayhi wa sallam ñu nar koo sore nga yóbbu leen fa ñuy xamee xam-xam bi ni mel yonent bi nee na ñoo ñu ñooy doon sitre ñooy doon bariyeel bay dox sa digganteeg safara ñooy dox sa digganteeg safara be doo tàbbi safara keroog bés pénc yow mi déglu waxtaan bi fii ci Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bi ana looy xaar jël sa doom yóbbu ko ci daaray vacances ngir ñu xàmmee fa la yàlla santaane ñu gém see jëf seen kémtalay kattan ñu xàmmee fa lépp lu yàlla tere ñu war ko mën sore ana xaar jël say doom yóbbu leen ci daara vacances ñu xàmmee fa lépp lu yonent bi digle ñu war see war a mën a tënk seen bopp ñu xàmmee fa lépp lu yonent bi tere ñu war koo mën a sore ñu am yërmande ci yow ndax ëllëg bés pénc ñu doon barrière bay dox sa digganteeg safara raccourci bu gaawaa ngi nii lii julli du la ko may génnee sarax du la ko may amul dara lala yi may lu dut la yonent bi tegtal fii sallallahu alayhi wa amul sama xeet ka yàlla di may nga meññ nga jur ñetti doom yu jigéen walla lu ko ëpp walla lu ko yées wala ñetti doom yu góor wala lu ëpp ñett yi wala la ko yées nga rafetalal si ñoom rafetal seen dundin rafetal seen jikko góor-góorlu ba ñu xam la yàlla sant ñu nekk ci nga góor-góorlu su ñoom ba ñu xàmmee la yàlla tere ñu bàyyi ko mu dëpp ak njàngale yenentu bi yenentu bi nee na lu dul keroog bés penc ñooy doon barrière bay dox sa diggante ak safara allahu akbar dangaa bëgg la dox sa diggante ak safara jëlal say doom yu góor walla say doom yu jigéen jàngal leen alquran jàngal leen xadisu yonent bi jàngal leen teggin ba islaam jàngale ne nit nii la war a teggine woo par rapport ak say wuyjur nit ki nii la war a teggine woo par rapport ak say dëkkandoor nit nii la war a teggine woo par rapport ak askan ba ngay dund nit nii la war a teggine woo par rapport ak quartier ba ngay dund su ko defee bu ko jàngee comme na ko islaam jàngale mu bañ koo jàngee comme na ko occidentaux jàngale xamal ne keroog bés pénc la nga góor góorlu ci sa doom woowu mooy dox sa digganteg safara kon képp ku bëgg lay dox sa digganteg mbugalu yàlla ba di safara na nga góor góorlu ba nga xamal sa doom bala yàlla wërsëgal nga meññ ko mu doon la la yàlla dënk nga góor góorlu ci ñoom ba ñu xam téerelu yàlla ñu gém ci tënk seen bopp nga góor góorlu ci ñoom ñu xam lépp lu yàlla tere ñu war ko war a mëna sore waaye nga góor góorlu ci ñoom ñuy def ndigle yàlla yi comme naka yonent bi jàngale sallallahu alayhi waaye nga góor góorlu ci ñoom ñuy bàyyi lépp lu yàlla tere ñu di ko defe comme na ko yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam ba tax na loolu mooy li fi nekk la war a sauver képp kuy parent ndax aaya bi yàlla daf ne may may ki ma soob ay doom yu góor kese may may ki ma soob ay doom yu jigéen kese may jaxase ka ma soob ma may ko doom yu góor ak doom yu jigéen yahabu la yàlla wax waxut may jaay waxut ne dañuy ñëw jënd ci man yahabu la wax may maye kon kado la bala yàlla may yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam kado woowu la yàlla may nag boo bëggee kado bi amal la njariñ kaay ma wax la noy def kado boobu yàlla may la ëllëg bés pénc nga bénéficier wu ci cadeau bi lam la doon meññal ak bénéfice cadeau googu géem leen yar géem leen jàngal xamal leen la yàlla santaane xamal leen la yàlla tere ñu di ko defee comme na ko yonentu bi jàngale keroog bés penc ñu doon barrière bay dox sa diggante ak safara kon mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñu war a mën a jébbal béréb bi ñay joxe xabaar ca nasaraan saa iliina mawla jalla wa ala an yajalana min allazina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana allahumma aati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurratu ayunin waj'alna lilmuttaqina imama allahuma aminna fi awtaanina w aslih aimatana wa wulata umuurina allahuma ya rabbi ihfad bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan baaraka allahu lii wa lakum fi lqur'ani alazim wa nafa'ani allahu wa iyaakum bima fihi min alayaati wa dikri alhakim aqulu ma tasma'un assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu